ARTP di autorité de régulation des télécommunications et des post daal di amal ab séminaire niki tey ci suba ñu doon ci waxtaanee anam yi ñuy jëfandikoo lii di fréquence rajo yi fii ci Sénégal Abdoulaye muy njiitu ARTP daal di nay dellusiwaat ci solas ndaje bi. li waral suñu ndaje tey mooy euh, xamal nit ñi ñun naka la ñuy gérer fréquence bi dans le cadre. di naka la ñuy gérer fréquence fréquence di ngelaw loo xamante ne moom moo euh, yor lépp loo xamante ne moom mooy communication donc tey boo amee sa téléphone soxla na fréquence boo amee sa rajo soxla na fréquence boo yoree sa oto di ko dawal itam soxla na fréquence donc euh, anam yooyu tax nañu ba nit ñi war a xam naka la ñuy gérer fréquence bi euh, xam nga fréquence itam moom moo yor développement internet internet moom mooy moom mooy yor développement wu développement numérique moom mooy yor aussi développement wu réew réew réew yëpp président de la république dafa bëgg aussi internet nekk euh, le socle du développement numérique. ARTP nag di waajal ay campagne ngir saytu fréquence yi nga xam ne jëfandikoo wuñ ko ngir ñu mën koo jëlaat ginnaaw ba ñu nemmeekoo ni fréquence yi rajo yi dafa manqué fii ci dakaar ARTP daaw defoon na benn euh, campagne d'audit pour xam nit ñi nga xam ne jox nañ leen ay fréquences ndegam ñu ngi koy utiliser wala utiliser wuñu ñu nga xam ne jot nañ ci gis ñoo xamante ne utiliser wuñ ko nangu nañu fréquence yi te itam fréquence dafa di loo xamante ne buñ la ko joxee da ko war a utiliser de façon responsable de façon responsable duñ la jox fréquence nga ciy def loo xamante ne du yoon fii à Dakar amatuñu ay fréquence dans la bande FM euh, daaw defoon nañ ni mu ko waxee léegi benn campagne d'audit parce que fréquence tam dañ koy liggéeyee nit ñi dañ ci dañ koy liggéeyee di ci créer ay emploi di ci créer de la richesse donc euh, fréquence les fréquences dormantes yoo xamante ne joxe nañ ko te utiliser wuñ ko euh, jotoon nañ ci nangu yeneen dinañ def yeneen campagne pour xeet seet ñi nga xam ne jox nañ leen dénk nañ leen fréquence utiliser wuñ ko pour ñu nangu ko jox ko ñoo xam ne soxla nañ ko. mu doon am ndajem waxtaan ak sottante xalaat ngir fexe ba joyanti li di fréquence rajo yi fii ci Sénégal ARTP di ci xam xamle ni limu fréquence rajo yi mi ngi toll ci cinq cent vingt cinq